أسير مع الأبرار حين أسير وزن لداني هناك أسير أسير مع الأبرار حين أسير وزن لداني هناك أسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الهداة الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة ها نحن نصل في حديثنا إلى منة كبرى من الله بها علينا منة باقية في شخص خديم رسوله صلى الله عليه وسلم القطب خادم رسول الله أحمد بامبا حامل لواء هذا الدين في وقت تجمعت فيه ظلمات الكفر وظلمات الجهل إلى منتهاها فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة الباقية ببقاء أوليائه وبوجود رسله فخادم رسول الله أحمد بمبه نعمة كبرى ومحراب في محراب bokk yu tedd yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu niñ leen ko diggee woon baaxoon leen ko wax muy xaadimu rasulillahi ahmadu bamba taxaw ci kanam xaadimu rasulillah mooy taxaw ci kanam xéewal bu mag jant ju fenkal àddina yépp alxuraan joo xam ne nekk na di jëmm ñi gis ca jëmm jooja ca jëfam ca waxam cay santaaneem cay tereem ca yëngatoom ca dalam ci léppam alxuraan juy dox sosuma ko jëlewuma ko itam ci samam xel di ko indi dama caa sukkandiku waxu boroom xam-xam yi seen mbind mu fi des ca laa teg sama bët samay gët taxaw di ko nettali gannaaw bu ko sama xol yëgee gannaaw bu ma jàppee ne wax jooju amul benn werante gannaaw bu ma toppee tànk yooya gannaaw bu ma xeeñtoo jëf jooja kon ba ma boolee fa ma sukkandikook la ma yëg ne naa axakay xaadimu rasuulillaahi ahmadu bamba alxuraan juy dox la waaye lu jiitu muy feeñ ci jamono dafay laaj ñu xool jamono ndax balaa xéewal feeñ dana am màndarga yu koy jiitu lu jiitu muy taw dana xiin lu jiitu muy taw dana tàng lu jiitu muy taw bari na yu jaww di wone ay ngelaw melokaan ba ñu xam taw danañu wax ne léegi tey mu taw tepp-tepp sax dana fa feeñ ba ñu bari foog ne mi na kon taw na te fekk tepp-tepp yooyu ñooy juri waame awalul xaysi xatratun summa yan hamir tepp-tepp yi jur waame kon lan moo jiitu woon feeñ ak sëñ bu mag bi ci jamono mooy ay yëg-yëg ñu bari yëg ne réew mi tooñ ak buur yi ñu defoon ëpp na ñépp yëg marag lislaam ne ak dog doxale bànneexu bakkan ku mën sa moroom duma moyaal nangu alali jàmbur yi réew mi ñu dogat ko ay dog ku nekk naan mana mana ku nekk di laaj yëf yi deret yi di tuuru barab yi di xat nit ñi bëggoon nañu génne ci xat-xatu tooñeel yegg ci yaatug lislaam diggante kajoor ak bawal diggante siin ak saalum diggante njàmbur ba ba nga yeggee waalo diggante fuuta ba ba ngay duggee réewam Sénégal oriental te mooy réewu boori Kédougou wala nga ñëw boori bàkkel wala nga dem réewu Casamance walla nga dugg sax ba Mali ak fu ci nekk rekk ay yëg-yëg a nga fa réewum Guinée réewum Mali réew yi ñuy wër yépp ca Guinée jëmm ñëw na indiwaale turwa ñu tuddee ko ko Ahmadou ba mu yëg ba jël dëkkam tuddee ko tuubaa kon kooku yëgoon na ne am na taw buy ñëw te fokk ay tepp-tepp jur ko yooyu yëpp dama bëgg a wax ne irhaas mooy jiitu neema xéewal boo gis yëg-yëg xiif gu ko nit ñi di xiif bugg buñ koy bugg moo koy jiitu kon su Cheikh Ahmadou ba ñëwee gane àddina ci jamono jooja nga xam ne ñu ngi ci maas ak fukk ak ñett kon nga xam ne ñëw na ci jamono joo xam ne yëg-yëg yi soxla nañ ko barab yi soxla nañ ko nit ñi soxla nañ ko loola kaña loola ma nga nekk amu sharaa siin gi di junne raa bi di ñaari téeméer ayn bi di juróom ñaar fukk am na nag ñu ne bi sharin dolli ci ak ñaar am nañu joxe yeneen waaye bii soo demee ci suñu waajur bu baax ba Cheikh Bachir al Mbakkiyu soo demee itam ci Mouhamad Lamine Diop Dagana soo demee ci mu xaqiqoon yi yépp danga gis ne ñoom dat boobu dañ cay taxaw lu yàgg naka noonu boo demee ci Hamid ibnu Ousmane bi Fuutankoobe moom itam sax sadd na ci ay bayt ne xad waddidal xadiimu man xad sharaa shariatal muxtaari aama sharaa summa madaa li rabbihi aama shumuusin wa amruhu aynun wa daalun ka shumuus wa qiila anna umruhu maali niltal muna wa sirrukal maali kon aamu sharaa di 1270 atam junne ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci la xéewal booba feeñ di cheikh Ahmadou Bamba cheikh ñépp xam nañu ko naaru na ala alam cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi ko tuddee wàlliyub yàlla bu baax ba nekkoon itam di sëriñu waajuram bu tedd ba nekk ci ñu ëpp luñ ko jàngal mooy sëñ Muhammadu Bamba Sàll bu ba su ko defee foofu tur woowu lañ ko jox sëñ Muhammad Bamba Sàll wàll la bu ñu xamoon di boroom xam-xam bu yaatu xam-xam bàyyiwul nag ay doom bàyyiwul ak njaboot moo tax ay rakkam ñoo continuer liggéeyam ci moom ci la maam Mor Anta Sali Muhammad ibnu Habibullahi ñu xamee ko ci maam Mor Anta ci moom la jële lu ëpp ci njàngam ànd ak maam Mor Anta nag jàngee na itam ci ay bokkam ca kokki ak yeneeni barab kon Muhammad ibnu Habib moomu di Mamor Anta Sali mooy doomi Muhammadal Kabir may doomi Habib moom mu njëkk ma mañ tuddee Habib mi nga xam ne mooy waajuram muy doomi Muhammadal Xayr may doomi ba tey Muhammadal Kabir ba ñuy tuddee Maaram maam Maaram Mbàkke bi nga xam ne moo taxawal Mbàkke Bawol mammaaram taxawal ko ci aama atam chaq da din siin ba di junne xaaf ba di téeméer dégg daat ba di juróom ñeent fukk da ba di ñeent atam junné ak téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent mammaaram moomu suñuy wax mbàkke dañuy koy yéegalaat ci mbàkke maaram mu bokk ci ay maamam noonu lañ ko mën a yéegee ba ba ñuy yegg ca wàllu Fuutankoobe ba nga xam ne ca Fuuta lañ jóge noonu lañ ko mën a yéegee ba sëñ bu mag bi delluwaat ca Muritaan ci ay famille shérif yu wér noonu lañ ko yéegee ba mu mën a yegg ci al imaam Xasan mu tase fa ak Seydi Ahmed Tijaani ma nga xam ne mooy doomi Fatima di doomi bi sallallahu alayhi wax ju ni mel ak taarix yu ni mel da ko fekk ci sang ba di boroom xam-xam ba di Cheikh Muxtaar Binta Lo doomi Ibrahim te ñu xamee ko sëriñ Ñomre sëriñ Ñomre ak sëñ Mouhamad Lamine Dagana bokk na ci ñoo xam ne ñu géeju lañ ci xam-xamu sëriñ bi moo tax soo demee Cheikh al Bachir Mbacke radiallahu ca taalifam ba ca muqaddimaam ba ma ngay wax ne xawaarequ sëriñ bi nag ak kéemaanam yi yooyu bàyyee naa ko Mouhamad Lamine Dagana Mouhamad Lamine Diop Dagana ak sëriñ Ibrahima euh, Bintu Lo muy sëriñ ñomre man dama jël yoon wa ak jaar-jaar ya kon loolu mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci ganeem àddina ama shar'in loolu mooy Cheikh baam Bamba ci nësabam noon nga ko fekkee itam ci wàllu euh, waajuram bu tedd boobu mooy maam Mor Anta Sali nga ko war a jaare itam ci wàllu néeg ndey bu sell buy yéeg ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy mbosonkoobe boo jëlee wàllu jaaratullahi maryaama buso nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci ibaada aabida saaima boo demee sëñ Basiru radiallahu anhu ci minanul euh, minanul baaqil qadim ma ko cay jox julleem wooram taxawam ay guddi yaram gëm doon yar njabootam ci ay xisas nettali yu rafet waaye ma ngi la cay waxitam ni mu yéemoo teel a gis sang bi bam ba ndax gis na ni su ñuy waxtaanee xéewal ak mbaax rek da gis ni sëñ bi ci saa si moom mu ngi koy jëfe bokk na ca sax ne daan na daan nañu waxtaanee taxaw guddi ak ngëneel ya ca nekk rekk ñu gis ne sëñ bi su guddee rekk mu jóg di taxawal guddi ci ay naafilaak ay jaamu yàlla ak jegewaan teeg boromam Cheikh Ahmadou moomu nag soo demee ci minnanul baaqil qadiim daf koo jël defal ko ci fi sirati Cheikhul Xadim daf koo jël defal ko ay bunt wax la nag ne la ca taalifam ba moom sëñ ba Bachiru radiyallahu anhu ma ciy teg ay tànkam ci ñu ko jiitu ci liggéey boo xam ne lépp benn bi la dafay mottaliwante lu mel ni liggéeyu Ghazali ak lu mel ni liggéeyu Abul Hasan Ash-Shazili moo tax ma ngay wax moom sëñ Bachiru di fàttali ne xóotul xulóob bi nga xam ne mooy bu abul xasan lii dafay def ci xol ak leer looloo tax leer googu mu gis ne def ca bugga saf ngir leer googu itam di gën di jolli mu ne ixyaa ulumu diin bu al imaamul dafay joxe xam-xam te gannaaw dafa jóg di liggéey xam-xam mu sof xam-xam ci kaw xam-xam ngir xam-xam mun a jolli looloo tax ca téeréem ba minanul euh, minanul baaqil qadim moom Cheikh Bachiru mu defal ko ay bunt bunt bu jëkk ba dellu nag ci sëriñ bi lan la ci yoon wi ñuy wax tëw ba te tëw ba ak ëw ba ñoo ànd dellu ci yàlla dellu ci yàlla dellu goo xam ne dellu leer la ndax yàlla léppam ak leer la mu wone nag foofa bunt boobu sëriñ bi ak bunt boobu ñuy wax ba ñëw ci buntab ñaareel bi ñëw ci sabru ak muñam mu ne lim daan muñ ci ay mettit ak di ko tegale koo ko tegale woon rekk mu onkat waaye sëriñ bi xàmmewutoon ndax lépp dafa am ko mu jaayanteel te mooy yàlla ba tax gisatul leneen lu mooy yàlla yàlla moom nag la daan gis ci lépp lii gënal keneen ak li gënalul keneen moom yépp mu gis ko muy ngëneel noonu la ko toppee ci buntu cant a sukkur te muy bunt bu yaatu ndax yàlla léppam daf ko teg ci xéewal ca lay yokkee wilaaya ca lay yokkee xam-xam ca lay yokke am-am ba tax mu wax ko ñëw ak moom ca ñeenteeli bunt ba ci buntu yaakaar raja yaakaar gooy yaakaar kenn te loolu dañ ko gisi ci kanam ci dundam ci kanam buur yi fi nekkoon ak biñ ko ci bugg a ommat ak biñ ko ci tegalee ne ko boo demee jëriñu na mi kamaxe loolu danañ ko gis ci buntab juróomeel ba moom Cheikh al Bachir muy wax ci sëriñ bi ci ragal goo xam ne ragal na ko yàlla ba nga xam ne amul leneen lu muy teg di ko xool di ko peese lu mooy ma ngi cay peese ne lii war naa neex yàlla wala lii na war naa rek yàlla wala lii war naa naqadi yàlla amul na rek lu koy peese moo doo woon peese kaayam mu ñëwal la moom Cheikh ba Bachir ci juróom benneeli bunt ba ci zuhdu na mu dëdd woon àddina moom sëriñ bi ba nga xam ne yàlla ommataloon nu ko mbindeef yi sëñ baa ngi koy wax ci biir téere bi ñu koy ñu nangul ko nangu goo xam ne dangay xam ne lii tàmbaliwul tey ca ësal la woon bakkan yi la yàlla ommatoon démb ñu ñëw tey gis lañu xamoon démb lu jiitu seen ñëw fii daw ut si ko waaye nag mu ne loolu yépp ak lañ ko doon liggéey ak lañ ko nangul yépp taxutoon mu teg ko fenn walla mu taf ko fenn daf ko jël rek delloo ko ca ka joxe loola mooy yàlla mu ñëwal la ci buntab juróom-ñaareel moom Cheikh al Bachir di la wax fi yi ca na mu wàkkirloo ci yàlla ba nga xam ne lépp rekk gis na ne moom am na fu mu sukkandiku fu mu tëyandiku fu dëgër mu ñëwal la ci nangu ak mbuggeel nang ut ngërmandel yàlla firda ak mbuggeel gu mu am cofeel noonu la la koy toppale mu tënkal la nag moom sëñ Bachir daal dundab sëriñ bi soo ko buggee natt boo ko buggee xam mu ne la ca xéewal bu mag ba ko yàlla jox te mooy xel foofu sëñ baa ngi firi xel nee na xel ñaari xeetu xel la muktasab te mooy bi nga xam ne danga nàmm sa bos ba mu miin ñi ne ah kii de am na xel te fekk nàmm ba mooy li ñuy wax làkki ci philosophie mu indi la nag beneen bi nga xam ne leer la juddoo waale la muy almunawwar mu indil la ko te mooy l'esprit de l'inné danañ koy wax ci philosophie foofu nag Cheikh al Bachir firil la ñaar yooyu ci Abdallahi ibnu Zubayr mu nekk xale Abdullahi ibnu Zubayr ba mu nekkee xale ca la seen Sidina Omar te fekk ñoom ay xale lañ ña ngay fo kenn la ci saxaaba yu mag yi bi mu ko séenee Sidina Omar ñépp daw xale yépp daw moom dawul sidna omar ne ko lu tax dawoo mu ne ko defuma lu war a tax may daw defuma lu bon kon fekkoomal ci lu bon ba tax may tiit di daw te yoon wi itam xatul ba ma war koo yaatal euh, pour nga mun a jàll gannaaw nag yoon wi yaatu na te defuma lu bon lu tax muy daw sëñ Bachir a ngay wax naan xoolal ak xale bu toll ci fo ba pare nag ame xel moo xam ne xelu mag mu mun a tontoo la yooyu yëpp nag pour mu firi ci ba indil na ne Sidina Ali yonent bi nee na ko jaamul yàlla ci sam xel yooyu yëpp nag bi mu ko jëlee tënk ne yàlla dafa may sëriñ bi xel ak leer boo xam ne soo koy tënk mu ne daal ca waxu bu sayru yu ba rek nga ko mun a tënkee te mooy alifa nuska wal ibaadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaa'u mu ne loola daal daf ko indiwaale màggaale ko te mooy euh, jaamu yàlla ci ñaari xeet ya ca lañuy ñuy rey ak la joxe jaamu yàlla ca la ñuy taxawee xal wa wéet te yàlla tax mu ne loolu daf ko indiwaale cag ndaw mu ne nag ñu mag ñi ñëpp noonu lañ mos di jaar sukoori bi aqlaani wa qalbi wa jusadi liman kaani bil jooji wa wa sakoor bokk yi gannaaw bu ñu santee yàlla ci xéewal yu mag yim ñu jox ñuy baawaan ci réew mi sant ko taxaw taxawaay ak xutbu boobu di xéewal bu mag boobu di cheikh ahmadu bamba ci bis bi muy taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa di am càkku muy fukki fan ak juróom ñett ci safar tàmbale ci liggéeyam ba ca géej ga yàlla xamal ko ca géej ga ak ca bato ba ne mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allamani rahmaanu fi safina kon ci xam-xam boobu raxmaan jege ko lool di yàlla ci yërmandeem gu jege ga ndax bu sore la ñuy wax rahim waaye bu jegee ba nga xam ne dara desatu fa ñu ne rahmaan su ko defee ba mu ko jegee ba xamal ko ko Cheikh Ahmadou Bamba boobu ñu toogoon di waxtaani ni mooy alquran juy dox soo demee Seydil ba a ngi koy wax ci xëtam fukk ak ñett ci téere ba nga xam ne mooy mi minanul baaqil qadim te mooy xéewal yu jóge ca kay desal xéewal waxtu wu nekk te yàggoon lool di yàlla mu ne nag fii siirati Cheikhil Xadim te di nettali ay jaar-jaar yu xaadimu rasulillahi ca ba mu yegsee ci diggante sëriñ beek alquran ca xëti fukk ak ñett Cheikh Bachir a ngi naan alquranu wal xadiisu fa huwa wiaauhuma wa xazinatu asraarihima wa manbai ulumihima mu ne alquran ak xadis nag moom mooy ndab lileen leen yenu mooy ndab li leen yenu mu ne mooy trésor bi leen gàrde mu ne mooy mbóot li leen denc mu ne mooy balluwaay bi nga xam ne ci biir balluwaay boobu ngay gis luy yi alxuraan continue nag dinay yufiidu bi anwaa'il ulumi wal xawaamidi ala al mustamiin noonu lay sottee noonu lay sànnee ay dëlëñ dex la goo xam ne noonu lay sànnee ay waame waame yoo xam ne toq bu ci nekk rek mun naa màndil lu bari mu cay xéewalee nit ñi moom la magam xalifatul xaaj Mouhamad Niass di suñu waajur di wéral ci téere ci leetar boobu mu jëloon ci ndigali waajuram alxaaji Abdallah yónnee ko sëñ bu mag bi fekk xisa bu gudd la ndax bàcc seen ca dànq seen dànq sës ca ndula dafa nekkoon ci sëñ bi mu koy toppal àlluwaam bi sëñ bi jotee nag ma maqaamam ba wa ba war a dugg ci liggéeyam fekk mébétoon na mottalil bàcc lam tàmbali woon ci moom ba mu ñëwee nag delsi ca yoon wa muy laaj bàcc seen ba àlluwa ja dogul mu ne ko dem naa ci alaaji Abdoulaye mu mottalil ma ko mu ne ko alaaji Abdoulaye def na lu neexi yàlla te naqadi seytaane yëkkati nag benn téere muy tafsirul jalalayn ne ko am nga joxal ma ko ko bi mu ko ko joxee alxaaji Abdoulaye Niass dafa nekkoon koo xam ne dafa mel ni imaamu Chazili maanaam dafa daan def ci ay taalibeem ay taalibeem di def ci téere yi waaye moom daanul taalif lii dafa daan wax ne talaamisati bii samay téere samay njaboot ñooy samay téere alxaaji Abdoulaye nag ñaan taawam ba xalifatul xaaji Muhammad muy suñu waajur ne ko nga yónneel ma ci sëñ bi ay ebiyaat yoo xam ne danaa ko ci firil jëfam ji xalifatul xaaji Muhammad yónnee ci sëñ bu mag bi xaadimu rasul di ko wax naan ko aska salaamin ka taami shahdi birraaxi yanuubu anna wisaala raaxi birraaxi aska salaamin ka rayis miskit nafxatuhu mucattaran bi nawaaxi cheikhi fawaaxi cheikhun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama sanaa'i bi mutriihi wa amdaaxi atxaftanaa bi kitaabin laa nadiira lahu arwaa galiila sadaanaa bacda alwaaxi laa zilta tarabu maa aasat wa maa fataqat idal wusaati bi iraabin wa islaaxi أذكى وأفرح ما يهديه محتسبا دبت حماياه إذ وافى بأفراحي هو الجلالاني تفسير لمنصبكم تفسير لمنصبكم مصباح علم كضوء الصبح لماح به تترست عن كيد الغرور وقد أعد ماضي أسياف وأر وأرماح جزاك عنا إله العالمين كما أحييت من منهج في العرف والضاح خذها مخدرة من وصفكم جليت ترنو بطرف إلى لقياك طماحي أزكى الصلاة على المختار من مضر الهاشمي النبي المصطفى الماحي والآل والصحب ما ناحت مطوقة على نظير من الأغصان مياحي sooy tënk wax ji ci ñaari béyt rekk nga koy tënk nee na ko yónnee nga ñu firim alquran huwal jalaalaani waaye nag li ñu yónnee tafsiirun li mansibikum mooy yow ndax yow sëñ bi alquran juy dox nga firim alquran ju taxaw nga ku la xool ku la déglu ku jëriñu ci yow bu boobaa alxuraan la delluwaat tafsirun liman sibikum ba pare nag mu ne ko du alquran ju lëndëm ju leer naññ la joo xam ne ku ko xool leerlu misbaaxu ilmin ka daw subhi waaw bëccëg la génn jant la joo xam ne jant nga boo xam ne ku la xool jëriñu ba pare nag mu wax ko li mu taxawal ci tariqa li mu taxawal ci yoon mu ne ko axyayta min manhajin fi l urfi wa daaxi indi nga manhaj boo xam ne ci ñooñ maarifa waddaaxi lu leer la kon alquran juy dox mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa loolu itam mooy firi ne cheikh al bachir ridwanullahi alayhi bi mu jógee bay taalif ci sëriñ bi bay wax ci siiraam ba bay wax ci jaar jaaram ya daf ko daldi yombal yombalab ne kaay ma wax leen sëriñ bi kaay ma wax leen alxuraan mu mel ni bi mu toogee bay taalif te taalif ba tabaarakallah xalim ba ga ba ba taaru na taaru boo xam ne dafay wone jëmm ja dafay wone la mu ëmb bi mu jëlee ba wax la loola ma waxoon ca xel ma wax la xel tënk ko ci alifa naska wal ibaadata tiflan ne liikat dafa ñëw rekk ànd ak moom mat googu dafa ñëw rekk daldi ànd ak moom mu jël la nag mu jëlal la kan mooy sëriñ bi ñu ne ko waxal ñu ko mu ne daal xanaa la waaja waxoon ca baytam ya laysa ala allahi bu mustankirin an yajmaa alaalama fi waaxidi mu ne wallaay jafewul yàlla mu dajale àddina bi yépp ci benn jëmm jëmm jooju nekk di àddina allahu akbar loola mooy la yàlla loola ma ngay fàttali maqaamaa bi yonent yàlla ibrahim inna ibrahima kaana ummatan ibrahima ca jëmmam ja ab umma bu taxawoon la moo tax sëñ Bachir ne wallahi gisuma lu rafete lu mën a melal sëriñ bi lu dëggoo lu em nit la woykat ba waxee ne laysa ala bi mustankirin an yajmaa al aalama fi waaxidi kon bi mu tënkee ba won la ne la jëmm jiikat àddina la te mooy inna ibrahima kaana umma jëmm ji àddina ju taxaw ci jëmmam la ñu ne ko kon nu ñuy déggee àddina mu ne kon nañ dugg ak yéen ci dundam ñu ne ko Cheikh Al Bachir lan mooy dundab sëriñ bi mu ne du nangu mukk jëw du nangu ñu def ko ci kanamam du nangoo ànd ak ku koy def du nangu mukk tooñ fu mu gisee kuy tooñ walla mu dégg ko dana taxaw ci kanamam ba kooku xam ne lii duñ ko defee coronam noonu la la jëlee ci xuluquhul quraan la sitta Aïcha waxoon sayyidatuna Aïcha ñu ne ko ñu yonent bi mu ne kaana xuluquhul kon mu indil ñu ne jikkoy alquraan ya mu dàq ma toog jëw ak yu noonu mu ne loola moom nga koy fekk ci moom Cheikh Bachir ma ngay nettali mu ne bokk na ci ay bàttaleem moom sëriñ bu mag bi ne moytu di wax ci nit yàlla yi moytu leen di wax ci nit yàlla yi ndax xam leen ne seen deret ja xam leen ne dañ leen a tooke ba soo ci waxee rek da ngay daldi gaañ sa bopp moo tax mu ne ne wa wasayaahu wa samictuhu yaquul inna acraada al anbiyaai wal awliyaai wal ulamaa al caalimiina masmuuma fal mutakallimu fihim bi suu in kashaari bi simmin naaqe mu ne moytu leen di wax ci boroom xam-xam yi moytu leen di wax ci nitu yàlla yi moytu di wax ci yonent yi moytu leen di wax ci yu mel ñi ne ko mu ne ndax seen deret ja dañ koo tooke seen der ja dañ koo tooke ba kuy wax ci ñoom da ngay mel ni kuy naan tooke kon dundam bi la xasal na ko moo tax sëriñ bi daldi ne waay waay waay cheikh al bachir mi ngi naan waay waay waay fa xaddis anhu wala xaraj waxtaanal ci sëriñ bi mbaax gu nekk te bul génne loolu mu ci xëti fukk ak juróom benn ci minanul yi ca bopp ba ca kaw ma ngay wax naan fa xaddis anhu wala xaraj mu ne waxtaanal gépp ak mbaax loo wax rek bu boobaa yaa ngi ci biir ci mun a jéggaleem fi samaaxatihi di la not wax nag ne la ak tabe moom suñ koy wax ci moom la yem moo tax mu ne la ihtazza bil maarufi wartaaxa lin nada wa aata ataa alsamxi an il munabi fa daan nii min maanin wa kaabin wa xaatimin wa min haramin da mu ne bu ñuy wax tabe nag bàyyil ma ne niñ daan waxee seen ak tabe ba naan yaa ngi tabe ba mel ni kaab wala yaa nga tam tabe ba mel ni xaatim wala yaa nga tabe ba mel ni alamaalab mu ne nag bu sëriñ bi taxawee bu boobaa dootuñ tuddati kenn di wax ne yaa nga tabe ba mel ni diw ndax fala tabe yem daanul nangu mukk li ñuy wax rumeur ah nit ñi de wax nañ nangam tasaaroo na mukk daanul demee rumeur dafa daan vérifier ay information waaw te loola mooy alquran jaakum fasiqun bi naba in fatabayyanu moo tax mu ne la daanul dem mukk ci ay rumeur moo tax mu ne fa min waraihi fii ci waraihi ragal ak yàllam ba mu ne fa min waraihi radiallahu anhu xurujuhu min kulli mu ne dafa daan daw rumeur foofu nag la lay ñëwalee nag ci tasawuf ak góoru tasawuf foofu la lay ñëwalee ci géej gi muy xam yàlla topp yàlla bugg yàlla Cheikh ba Bachir nag remonteel la ko ca jamono yu yonent bi naka nga xamee ne xam-xam yépp benn la woon amutoon lu ñuy wax fiq amutoon lu ñuy wax leneen xam-xam benn la woon indil la li ñuy wax taalibeeg sëriñ ba nu ñu bari di foog ne lu ñu sos la lu tax ngay dem ci sëriñ ba di jébbalu lu tax ngay dem ci sëriñ bi di am sëriñ mu firil la ko yégal la ko ca jamono yeneent bi ca bayaa ca sajaratu ridwaan ñëwal la ci saxaaba yi jaayante ak yeesal ak jaayante guñ daan def te xam ne xas nañ dugg waaye dañ daan ñëw yëkkati seen loxo teg ko ci sa loxo ne dama ñëw di yeeslu yooyu yëpp muy yéegataal yéegal la loola ba won la ne la ak taalibeek ak cëriñ ci sunna lañ ko fekk wax la ne la doxinib taalibe ci ron sëriñ ci déglu ndigal ci déglu ko ci xool ko itam mu yéegataal la ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëstukat yi yaakaar naa ne war nañoo taxawaat ci téere bu mel nii rawatina ci bunt boobu sëñ bi tuddee dégg nga mabxasun fi fanni tasawuf muy ab gëstu bu mu wax ne daf ko amal ci fannu tasawuf noonu la la ko yëgalee moom sëriñ bi Cheikh al Bachir ba yegsil la ci al imaam al Junaydi ne la moo njëkk ak boolante xam-xam boobu jox ko ay maani mufradaat ba nga xam ne suñ waxee lii lii lañ ci jublu buñ waxee lii lii lañ ci jublu mu ñëwal la ci nag ba ci Abdul Qadir al Jeylaani ak al euh, Sayyid al ca penku ba nga xam ne ñoo fa taxawaloon tariqa mu ñëwal la fii ci maghrib moom Cheikh al Bachir ci Seydi Ahmada Tijaani ci maas ak fukk ak ñaar ak tariqa tijaniya ñëwal la ci fii ci Sahra Mauritanie ci Seydi Mouhamad al Mukhtar al Konti bi nga xam ne moo fi yëkkatiwaat tariqatul qaadiriya kon noonu la la ko toppalee ba ñëwal la nag ci maas ak fukk ak ñett ñëwal la ci sëriñ bi ci loola mu ca feeñal ci yoon yoonu tasawuf won la nag ne la lii mooy yoonu gaaya jëlal la nag sëriñ baag nësëbam kon mu mel ni taxaw bi ñu waroon a taxaw ci bis bu njëkk bi mooy taxaw ci yooyu nga xam ne moo lay màndargaal ne sëriñ bi mag bi alxuraan bu taxaw la moo lay màndargaal ne jukkoom yi yépp boo ko xoolee ci alxuraan gis ko ca boo ko xoolee ci doxini yonent ya gis ko ca boo ko xoolee ci doxini nitu yàlla yu mag ya gis ko ca ci ngay gisee ne zuriyatun baaduha min baad benn giir la goo xam ne ko ca xool daldi ko ca gis noonu la la koy toppalee ba woon la ne la sëriñ bi lii mu yëkkati woon lii mu taxawal njëriñ lii mu indi xéewal lii mu feeñal xéewal la boo xam ne dafa am cosaan dafa am fu mu jóge dafa am fu mu bokk xéewal la bu yàlla di joxe taw la bu yàlla di sotti sotti na ko ci ay barab taw bu mag baa ngi kon taw bu waamee ngi kon yooyu yëpp remonté na ko pour boole ko ba nga xam ne ci ñooñ tasawuf la boole ko ci ñooñ zuhd boole ko ca rang booba nga xam ne ca la bokk mu mel ni nag pour dégg sëriñ bi dana laaj ñi ubbiwaat beneen xët mooy ndax li ñuy daw di ronu ci ñuñ àddina di leen uti ndax sëriñ bi àndoon na ci déedéet ndax ñu ñëw soppi ay nitam def leen ay niti àndina ndax àndoon na ci déedéet xaalu lii arkun li abwaabi salaatini xaalu lii arkun li abwaabi salaatini taxzu jawaaiza tugni kulla ma xiini fa qultu xasbiya fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu ولست راضيا غير العلم والدين ولست أرجو ولا أخشى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني إني أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين keroog ba nga xamee ne te dañ ci ñëwaat Baay Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali wàcc na liggéey ñu woo ko ne ko waaye te ñu laa yóbbu ci buur mu jegeel la defal la lii nga jaale ko te fekk am na fu mu tegoon sa waajur wax ko yooyu yëpp mu ne leen déedéet nee nañ ma demal ci buur soo demee danga am ay lu duun loo fa jëlee ma ne leen daal doyloo naa yàlla moom la waa ji di wax ne dégg nga yàlla doy na ma doyloo naa ko maa indakum yan fëdd jàng naa ko ndax ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baaqi yooyu yëpp nag dañ ci ñëw wax na itam kan mooy murit jox na saadiq wax na ñeenti melokaan yoo xam ne ku ca génn da ngay riirandoor rekk waaye bokkoo te loolu itam la gaa yëpp doon wax tiijaan yombul murit yombul nekk taalibe yombul waaye nag fuñ mës a taxaw rek nag dana bëri ñu leen wër ñoo xam ne at lañ leen di def di dóor ci seen tur di wax ci seen tur waaye nag moom nee na leen ah yéen a ngi naan poson de ndax wax ci kenn koo xam ne ittoo na yàlla wala mu xam xam-xam ba yow ak naan poson yi yéen a yem. asiru boroom may yu yaatu yooyu nga xam ni ay kaawtéefam nekk na di waxtaan ndax la ko waroon ci pexe pexe ay noon yàlla musal ko ca yépp ba mu sadd bayt wax ko ne salimtu min al aada mucc naa ci pexe yi noonu Ahmed ibnu Muhammad ibnu Habibullah xaadimu rasul waxoon nañu démb ni ama sharaa ci la gane àddina muy 1270 ci hijra wax nañ ne ma nga wàcc liggéey amu shumuusin 1346 soo ko nattee ci weer jullit yi muy juróom ñaar fukki at ak juróom benn suñ jëlee nag léegi gannaaw màndarga yooyu ñu jël doon ci barkeeloo jël sëriñ bi xaadimul rasuul ak ay jaar jaaram danañ gis ne xaadimu rasuulillaahi ahmadu bamba comme niñ ko waxee tudd waajuram yu sell ya muy muhammad ibnu habibullah ibnu muhammad al kabir tudd itam soxna jaaratullahi maryam te ñu gisoon nañ ko yare waajur ba sëñ moor baay moon anta sali nekkoon na aalim nekkoon na imaam nekkoon na ku ñu xam ci xelam bu sell bu mat ni ko Cheikh al Bachir Mbàkke ca téereem ba soxna sa maam jaara nekkoon na abida jaamukatu yàlla di ko feeñal ci koor yu bari di ko feeñal itam ci taxawal ay guddi di ko feeñal ci bërib sarax waaye itam di ko feeñal ci yar njabootam ci di leen nettali ay qissa yoo xam ne ay nettali yu baax yuy des yooy yëpp pour wax ni ci loxo yu sell ci la ko yàlla jaarale mu nekk moom sëñ bi di ko xam ne ku itteewoon teel a itteewoo xam-xam la yàlla may ko jàng na ca loxo maamam jàngaat itam ci loxo najaayam nekkoon na ci jolof di topp alluwaam waaye itam àndoon naak waajuram ya dem ca saalum ca poroxaan fekk ñoom ñu nga doon uy ji woote ma ba jaxu ba bi yëkkati woon jihaad ngir taxawal lislaam ca réewam ripp ba mu fa nekkee nekkoon na moom sëñ bi di topp alluwaam ci loxo najaayam ci loxo àmmam baay taxam sàmbatu Tukulóor nekkoon na di jàng ba nga xam ne gannaaw xare ba ba Maam Mor Anta Sali waree ñib si euh, dellu si Bawol moom dafa des di wéyal àlluwaam nekkoon na fa di wéyal ab njàngam moom sëriñ bi Maam Mor Anta Sali ñëw euh, Bawol nekkoon fa dellusiwaatoon tam ak Lat ndax Lat Joor xam nañ ne fekki woon na ma ba waaye fa mu tolloon ca xare ba gannaaw gi ñibbisi woon na itam pour taxawee Bawal moom xaadimu rasulillahi Ahmadu ba bi mu nekkee ci loolu ba nga xam ne nag waajuram ba muy maam Mor Anta Sali génn na àddina ci atam junne ak ñetti téeméer ci milaat nee na ci altine ba sëñ bee koy nettali sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana di ko wax ca téeréem ba nga xam ne mooy Irwa un Nadim ma ngi koy wax ci xëtëb fukk ak juróom benn mu ne sëriñ bi nettali na ne ba mu mottalee kaamil ca kanam waajuram ba ci guddik altine ëllëg ba di guddik talaata ci la waajur bi di wara a wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey moom Maam Mor Anta Sali ñu war ko yóbbu ca Déqale sëriñ bi bokkoon na ca ñey dem ngir taxawee ko waaye ba muy dem dafa tàmm dox ak ay tànkam ñu bari ñëw nañ gaaral ko seeni waruwaay seeni fas waaye mu ne leen tàmm naa dox ngir sàkku ci yool yooyu yëpp daf ñuy woon jëmmu nitu yàlla ki nga xam ne lu ci nekk rekk tànn na ca yoon wa gën a jafe utul li ñuy wax solution de facilité waaye lu ci nekk rekk xam na ne nu mu gën a méttee yool bi gën a mag te loolu itam ñun ñoo tax muy jàngale ndax nit yàlla yi xéewal lañ bu yàlla di indi ngir seeni jëf war a nekk ab bind mu tànn kon dox ak ay tànkam malgré yiñ ko daan gaaral yépp ci ay waruwaay ba ñu yegsee ba war taxawee Mamor Anta Sali sëriñ tey ba di sëriñ Mamad Ndumbe Mar taxaw taxawee loola bañ pare ba yegsi ca waxtaan wa ak waare wa sëriñ tey ba nag daldi laajte ana sëriñ bi ne ana Ahmadu Bamba ana sëriñ Bamba mu jóg moom sëriñ bi te fekk ma nga toogoon ca gannaaw loolu yëpp itam pour nga gis jëmm ji gis lim ñu jàngal ci tawaadoo ci war a wàcc sa bopp ndax wàcc sa bopp ci la la yàlla di yëkkatee te ñëw na ci xadiis man tawaadaa rafaahu llah ku wàcc sa bopp yàlla yëkkati la kon ca jataay boobu fekk na sëñ baa nga ca mbooloo ma waaye dafa ut palaas ca gannaaw toog fa biñ ko wooyee ne ko jege sil mu jóg taxaw taxawaay boo xam ne dana dégg te bu waxee ñu dégg ko mu ne fii baax na ndax buggut a jéggi nit ñi di ñëw si ci kanam ba tey bind ngi foofu ci ñi nga xam ne fu mbooloo bëree ñu wone ne ñoom seen ab dayoo mooy war jéggi mbooloo ma yépp ñëw ci kanam seen ab dayoo mooy war a xëccoo yenn palaas ya ma ngi cay jàngale ne bañ a la jéggi nit ñi te foo toll rek nga xam ne foofa baax na bi sëriñ tey ba jóge bi muy wax ak moom won ko ne ko e gannaaw bi mu ko joxee kàddug njaal ne ko nag suma sañoon nga ànd ak man ak ñenn ci ñu ñu ràññeeku ci dëkk bi pour ñu ànd dem ca buur ba Lat Joor ngir jottali ko njaal suñ ko jottalee njaal e dana ko neex ndax wëllëre la woon ci waajur bi te itam dana tax mu jegeel la te dana tax itam mu taxaw la ci say bugg-bugg yépp sëriñ bi daldi ko tontu ne ko baatu njaal bi nga jot joxe jot na gërëm ko ci ne ko immaa nag li nga wax pour dem ca buur pour jege ji ko walla pour lenn lu mun di doon loola moom doyloo naa yàlla wëlis loola euh, sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana mi ngi nettali ba tey ci téereem boobu nga xam ne euh, ci lay nettali dund bu sell boobu mi ngi ciy nettali ne ci xëtëb fukk ak juróom ñett mu ne foofa wax na fa loo xam ne ñaari xaaj la mu ne benn bu njëkk bi bi mu waxee waxam jooju ba ne doyloo naa yàlla wëlis buur ak luy jeex ci àddina doyloo naa yàlla yàlla doy na ma mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj ñenn ñi ne ah kii de di ndaw nga xam ne boobu war naa toll ci fanweeri at am ngëm gii taxawee taxawaay yii sas nañu ni ñëpp ñenn ñi daldi ne ah kii de xamul li mbugg ku ñuy ubbil bunt yu nu yem ngay taxaw di am baat boo cay teg mu ne mbooloo ma xaaj ñaari xaaj mu ne sëñ bi sadd ca ne xaalu safihun li sarfi an basar li mu ne ñi ne kii de xamul lim bugg ndax li ma xoolul lañu xool sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ma ngay wéyali di wax ne ca nettali ba muy nettali dund sëriñ bi mu ne nag beneen xaaju bayit bi mokkalu ko mu ne lam astahdirha wala raaytu nusxataha foofu itam la honnêteté intellectuelle mun a yem mu ne beneen xaaju bayit bi nag jotu koo gis waaye nag mu ne beneen xaaju waxu sëriñ bi jëm ca wax mooy booba mu indi ne xaalu te ñu indi woon ko démb xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxzu jawaïsa tourni kulla ma xiini foofa lay sëñ bi ci abyaat yu bari yum ca wax ba yegsi ne aw kayfa yab'asuni xubbal xutaamu ala jiwaari man dóorihim rawdu shayaatini waay waay buggu ndesite àddina beeg xooñ meeg lu doya di lii naka la may puusee ma jëm ci këri buur yoo xam ne seeni kër du lu ay paley seytaane dara xiiruma ci di ca teg banaan in kunta za xazanin aw kunta za watarin daawta zal ayni xabla raa iwa chine yi bu fekkee ne li lay tax a jóg ba ngay uti kër yi buur yi mooy jaaxle wala bugg-bugg bu nekk ci yow wool borom ayin ak raa ak chine mooy boroom aras te xam ne loolu yépp am na ko noona lay ñëwee ba ne yaaman yalumu fala tuksir wadaa uzli ni islastu min fuqdati dunya bi mahzuni in kaana bi zuhdun fi xutaamihimu fa zaaka aybun nafisun laysa yuxzini mu ne bu fekkee de won seen gannaaw seen alal jeeg seen nguur yéeg yi ñi wone ne mooy dara bu fekkee loolu mooy sikk ci man kon sukk boobu duwul bu may suufeel kon nii la sëriñ bi jàngalee wara won nguur ak politique ak poñetu àddina bi gannaaw ngir war a xool sa borom ci jamono joo xam ne jana jamono ju jafe noonu itam la sëriñ bi nekkoon di jàngalekat lu jiitu lépp ame daara nekk sëriñ daara noonu itam la daan xeeñtoo yoonu gaaya te mooy yoonu tëjarut génn ci sa jëmm uti sa boroom yoonu siyaaxa di wër di seetlu xul siiru fil ardi boobu noonu la daan awee yooni gaaya di ko xeeñut bim toppee nag ci yoon woowu moom xaadimu rasuul ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag feeñu ko wax ak moom musaafahatan ne ko nag léegi na nga bàyyi di xamle nit ñi ci bind te yóbbu leen ci seen boroom ci himma mu daldi ko won loola yëf ya diis moom waaye mu jël nag fasdaa bi ma tu'mar mu xam ne nag lañ koy sant lu dëgër la ca la taxawee nag ca kanam mbooloo ma ca daara ja génn sukkandiku ca loola ne leen ala man kaana saxibana li taallumi fal yanzur li nafsihi wal yazhab xaysu shaa waliyan wa li jinsihi wa man araada maa aradna falyassir bi sayrina wal yaqum bi am amrina koo xam ne daal jàng moo ko taxoon a jóg na uti beneen yoon koo xam ne nag dafa ñëw ngir nekk taalibe laxasaayu nañu topp foofa mbooloo ma xaaj ñaari xaaj coow la jóg ñenn ñi ne dañuy dem ñenn ñi di téye ñenn ñi foofa nag la yoon woo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe tàmbalee foofu la liggéey boobu tàmbalee sutooriya fi taarihim abi muhammadan bi azmin wa nasrin wa huwa nirma satoolu ñu ngi àndoon nag cheikh al xadim xadimu rasulillah ànd nañ ak moom mu nekk cheikhu tadris di jàngalekat ànd nañ ak moom muy saaxibu himma di borom itte ànd nañ ak moom muy zaahid won àddina gannaaw àddina nañ ak moom mu tëj bunti buur yi uti bunti buur ba muy yàlla buur uti yàlla ànd nañ ak moom mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ko ndigal ci ne na jël jaam yi ommat leen yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko ko musaafahatan soo demee Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana ma ngi koy wax ci irwaau Nadim ma ngi koy wax ca page 22 ba di wax naan yonent bi sallallahu sallam daf koo wax shaafahahu bi qawlihi rabbi asxaabika bilhimma wala turabbihim bi dars mu ne ko na nga yar say ñoñ ci himma te mooy itte googu di jóge ci itte googu di la yóbbu ci sa borom mu lay xamal te bu leen yar ci ab bind ndax xam-xam marsuum moo ca gën a tuuti lañuy bind lañu ñu bindul nag te yàlla di ko xam mu nekk xéewalam mooy la ca gën a mag loola nag sëriñ bi nettali na ko ridwanullahi alayhi sëñ baa ngi wax ne wa min ajaa'ib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bi lawliya ila alqiyaama wa kullu waliya sunnatuhu wa saanaha an bidaci tabshiiruhu xadimuhu bi fasdaci muy wax ci kéemaanu ibnu abdallah muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu leeralee suuf di ko leerale ak ay wàlliyu ñiy wéy di wéy di leeral jamono ju nekk ak barab bu nekk mu ne ba ba bis penc di taxawe mu ne nag bokk na ci xéewal yooyu bokk na ci kéemtaan yooyu jóge ci yonent bi salaay sallam mooy ba mu waxee xaadimam te mooy jawrinam muy moom di Ahmadou Bamba ne ko bigal nañ la ci fasda bi ma tu'mar jógal nga woote yonent bi sallallahu alayhi bañ ko waxee fasda bi ma tu'mar ca la jóge woote xare moom itam bañ ko joxee ba ku ko yonent bi sallallahu waxee ci la jóg woote ci yoon bi nga xam ne mooy yooni murit moo tax mu ne bi an yaclama almuridiina wa man yaqbal minhum nusxa min ahli zaman wa annahu awsalahu an taxalli li rabbihi mubashiran bittaxalli mu ne ngir murit yi xam ne ku ci nangu ci ñoom ay njëriñ ki tegtal ak ñu ommat la mu xam ne yoon wii kat ki ko yëkkati muy xaadimu rasulillahi sallallahu dañ koo jaarale ci yoonu taxal lii te loolu mooy yoonu gaaya mooy attaxalli qabla taxalli ak attaxalli qabla tajalli muy ñetti étape ya da dindi mboolem loo xam ne gisoon nga ko sukkandikukaay ba dara dootul des muy la négation totale taxal lii su ko defee nag taxal lii ñëw nga takk gànjar ya taar ya yàlla takkal la ko boppam te mooy yoonu taxal lii taxal lii nag mooy ànd ak te jël lii yàlla di wax ci yow di def ci yow loo defa teeg loo waxati loola mu nga jóge ci yàlla kon noonu la jëlee yoon woowu muy yoon woo xam ne mooy tarixal tariqal muridiya te mooy yoonu gaaya mu mel ni léeg-léeg ñenn ñi laaj waaw ndax yoon woowu nit mën na koo jël ba pare boole kook baneen walla nit mën na ko jël bàyyi ko sëriñ bi ne déedéet kon yooni gaay yépp ñoo bokk benn mantiq mu mel ni aji déglu ji dana ma poser question waaw lu tax su ma nekkee tiijaan mënumaa nekk murit lu tax bu ma nekkee murit mënumaa nekk tiijaan lu tax mënuma leen a boole lu tax mënumaa utati siyaareb tëbbu ci keneen lu mooy kë ma jàpp yoonam te lépp ñu ne ma lislaam la boroom xam-xam yi tontu ca ne ba ca jiitu de wàllu sharia la mooy contrat moo leen boole dangaa ñëw jaayante indiwoon woon nañ démb la ca Cheikh al Bachir waxoon ca bayaa ka nga jaayanteel nag dangaa jaayanteeg moom te yàlla ne mottali leen kóllëre mottali leen contrat kon soo xasee ba am contrat contrat boobu daf lay daldi yemale foofu firiwul nag ne foofu rekk a am waaye contrat ba moo lay yemale foofa muy benn ñaareel bi itam seyrun bil xal bi la sa xol nga jël am foo ko duggal jël ay tur yoo xam ne yu ñu jël la joxe ca ndigal su ko defee nag ñi ne la loolu mooy ubbi sa xol bi yóbbu la danga jël sa xol di ko doxee jëm ci yàlla seyrun bil xal bi te xol du jàpp ñaar gannaaw nag xol du jàpp ñaar kon bi mu jàpp moom lay jël loola nag mu ngi koy jël ca awraadu laazima yi nga xam ne dañ lay ne moom danga koy saxoo yooyu dootoo ko booleeg yeneen yu ñuy saxoo faneen kon dama bëggoon a wax rek ne loola mooy yooyu gaay yépp soo ca xasee ba jàpp dootoo bàyyi soo ca xasee ba jàpp dootoo ko boole ak leneen almuridu laa yuridu da ngay yegg ci sëlbul iraada mun nga ko fire itam beneen firin mooy ne yoon la tariqa la tariqa nag yoon buñ la nee yoon bii de am na waaye beneen yoon am na te yépp palaas sàngam la jëm nga ne waaye mënoo aw yoon yépp pour yegg ci palaas sàngam kon nag fokk mu am yoon woo xam ne moom nga ciy jël pour aw looloo tax ñoom ñu tudde ko yoon woo xam ne dafa am tàmbali am àkkukaay tuddee ko suluk ak looloo tax sëriñ baa ngi wax ci biir ne ku jàppanteeg sëriñ boo xam ne waasil la fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal soo àndee koo xam ne de tegu na ci kaw yoon danga nga yegg boo àndul ak ku tegu ci kaw yoon nag xamal ne yow réer nga wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yadi cheikhi fa yalqaa mexanaa mu ne nag ku amul sëriñ bu jël tarbiya la tarqiya la bu boobaa ay coono rekk ndax sam xelam bopp rekk ngay deme kon nga gis ne ñoom ñépp seen kàddu benn la ñoom ñépp seen awale benn la looloo tax sëñ bi itam jóg pour tarbiya nit ki teggil ko li nga xam ne moo dox digganteem ak boppam dox digganteem ak moroomam dox digganteem ak boromam ñu koy tuddee alxijaab te mooy voile boobu di dox sa diggante ak xam yàlla mu ne xijaab yi nag juróom benn lañ bi xaadimu rasul mu ne xijaab yi dox nag sa digganteeg sa borom juróom benn lañ walil xijaabi sittatun min al usul wa qatuhaa xaqan liman raamal wusul mu ne juróom benn kiiraay de ñoo am soo bëggee yegg ci sa boroom nag fokk nga dagg ko mu ne qul kisratul akli wa kisratu shurbi summa mulaaqaatul baraaya bistihaab mu ne néewal sa lekk néewal sa naan di xeex ak bakkan bi te uti yàlla te fekk am nga àndandoor bu mat àndandoor mu ne wa kisratul kalaami kisratul manaam néewal wax ju bari néewal nelaw yu bari wa xaflatun an zikri rabbina salaam bari looy tudd yàlla bañ a fàtte tudd yàlla benn jamono yàlla mi nga xam ne ci moom rekk nga mun a amee jàmm fanzur xool ko pour la ma waxoon ne mooy yoonu gaa yi mu ne la loolu yëpp nag mu ne fanzur fi jawahiril maani li cheykhina al muazzami tijaani mu ne nag wax jooju xool ko ca jawahirul maani bu sang ba sëriñ sëriñ bu mag ba ahmada tijaani wax jooju xaadimu rasulillahi moo koy wax pour nga xam ne nitu yàlla yépp benn lañ zurriyatun baaduha min baad pour nga xam ne leer yépp benn la nuurun ala nuur noonu la ko jëlee pour wax la naka lañuy ñuy dindee këchful xijaab tabam la ko waxee mu ne la loola ngir nga wër lu ci demal ci jawaahirul maani bu sayidina ahmada tijaani kon yooyu yépp pour taxawal la ne la tariqatu almuridiya bi nga xam ne moom la xaadimu rasulillahi ahmadu bamba taxawal tariqatul qawmi la yoonu gaaya la turuq yooyu yépp itam turuq muaddiyatun ila alxaq turuq la yoo xam ne itam yoon la ay yoon la la yu yóbbu ca yàlla ca dëgg ga yoon la yoo xam ne itam waasil moo ko yëkkati ku yegg moo ñëw di jël koo xam ne jógagul pour awale ko ci yoon waasil moo ko jël di ca yóbbu di ca ànd ak saalik pour yóbbu ko yoon la yoo xam ne itam kon ni ma ko waxee nanguwul jaxase waaye nanguwul itam diingat kenn ci ñoom ngay daldi jàpp nag ni ne awliyaullah yépp benn lañ da jàpp ne ñoom ñépp boroom yi ngëneel nga nangul leen seen ak ngëneel ngay ñaa jàpp mbaax lañ nga nangu leen seen ak baax dangay jéem a dégg seen wax loo ca déggul nga jàpp ne yow yaa yeggul ci mun a dégg waaye ñoom lañuy wax lu leer la moo tax kenn ci ñoom daan wax ne kalaamu law li yi lastu afhamu li ënna ni ana ana wahum humu waxu wàll yi de tënama ma dégg ko ndax man man laata ñoom ñoom lañu kon danañ lay wax wax joo xam ne soo ko tekkee tekki bu gaawtu danga daldi juum ndax ñoom dañoo am li ñu wax ay jargon baat bu ñu wax dafa am lu muy tekki loolu itam wax naa la ko ca ba ñuy waxtaan ci minanul baaqil qadim fi siirati cheikhil qadim bu sang ba sëriñ Bachiru Mbàkke ci mabxas ba mu tuddee mabxasun fi fanni tasawuf gisoon nañu ne imaamul junaydi moo njëkk a dajale mufradaat yooya baat yooya ba suñu waxe al axyaar nga xam ne lu dul yàlla rekk mooy axyaar waaw suñu yegsee ci yàlla nga gis nañ ko tuddee ci ay melokaan naka lañu jëlee yoon wa tuddee ko suluk ak wusuul naka lañ ci wax waasil lan mooy cheikhul murabbi kan mooy sëriñ bu mat sëriñ yan melokaan lañ ko jox nu muy mel yamiy indi baat yamiy wax ca loo xam ne léeg-léeg doo ko mën a dégg ndax yow baat ya la la koy déggeek la muy firi ci yow daf lay niru ne lii bokkaale la te fekk loolu mooy jëmm tawxiid léeg-léeg ñu ñëw ne la gise naa ak bi xam nga wax nañ ko léegi nee nañ la sëriñ bi mu saafahat na wax naa ak bi mu wax ko muy dégg yonent bi di ko wax mu dégg mu ne ko yaral sa ñoñ yaral sa ñoñ ci himma te nga bàyyi leen a jaarale ci jàngale kon daf lay daldi di yéem nga ne waaw diggante yonent bi ba mu fi jógee léegi junney at ak topp nu mu ko waxee muy dégg ñu ne la gis na yonent bi sallallahu alayhi ci jëmmam ci daarul quddus ci bis bi di fukki fan ak juróom ñett ci safar ba mu ko gisee mu nangul ko sant ko liggéey bi nga ne nu mu koy gisee yooyu yépp daf lay daldi jaaxal waaye boroom xam-xam yi tontu nañ ci démb teg ko nag ci sunna ak siira ak alxuraan ju wér ñoom ñëpp boroom xam-xam yi yëpp nangu nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane nañ ko jëlee ko Màkka yóbbu ko Beytul Maqdis bañ ko yóbboo ñoom ñëpp nangu nañ ne tase na faak yonent yi yépp ci seen jëmm mu wax ak ñoom jiite leen ci seen jëmm te yonent yi fekk na ñu jóge fi bu yàgg nangu nañu xissa yooyu yépp na mu demee ba mu demee ca asamaani juróom benneel ba tase fa Muusa mu wax ak moom su demee jëli julli bu ñëwee mu wax ko ne ko dellul ñu wàññil la ko te ca jëmm ja lañu wax ne moom la taseel ba ni mu ñëwee ci benn xaaju guddi mu dox ca loo xam ne ëppoon na doxab weer te loolu yépp ñi nangu diine nanguwaale nañ ko ña ko weddi weddi nañ diine te loola nañ ko defale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nekk di mucjisa noonu lañ koy defalee awliyaullahi mu nekk di karaama loolu itam xam-xamu karaama ak mucjisa ne yàlla lam daan def di ijaaz ne ab yónnent def na ko danaa ci lottaloo keneen ku bugg defal ni moom noonu la ko maye ay wàll yu te leen ñoom ñu lottaloo ci kenn ne def leen kum neex mu gëm kum neex mu weddi ku gëm moo yokk boppam moo ko defaral ku weddi moo lor boppam boppam rekk lay lor kon gis yooyu nga xam ne dañ ci gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko bokkale boo ca demee ci imaamu sayuuti ñu xamoon ko ci xam-xamu xadis wax na lim bu takku bu mu gis yonent bi sallallahu alayhi boo demee ci mursi abul abbas nee na bu ma tàggoon ak moom benn diir rekk ma jàpp sax ne bokkatuma ci jullit yi boo demee ci alimaamu suuri wax na ko lim bam ko gis ña ko wax nag bëri nañ bëri boo xam ne gëm nañ ragal nañ yàlla ragal goo xam ne am nañu xam-xam am xam-xam boo xam ne yaatu nañu màndu nañ màndu goo xam ne lañu boole yépp weddi ko dafa amatul yoon moo tax ci boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañoo tënkoon ñu koy weddi ci benn baat ku mel ni Cheikh Ibrahim Niass dafa daan wax ne ñu koy weddi dañ cee bokkul moo tax ñu koy weddi dañ cee bokkul baat bu ëmb xam-xam la ñu koy weddi dañ cee bokkul mooy dañ ko réere te ki réer réere dara jarlu nga ko koy wax ndax boo ko ko waxee du ko xam ka dëkk ci àll ba mës sa gis njëndi nga ne tey nga wax ko gratte-ciel da ngay sonn rek ay tabax nu ñuy tegaloo la lay wax te daan ndax xamu ko ki xamul dara ki amul caf ko ci gémmiñam nga wax ko li suukar di saf dangay sonn rekk kon ki réere moom di ko wax lim réere jaru ko ki xam suy weddi xam lu ëpp ña xam lañu xam moo ko war a tax a weddi waaye warta weddi weddi loolu munta nekk te ñooñu ko wax yegg nañ ci dayoob xam-xam teg ko ca kon yooyu yëpp dama doon ñëw rekk ci ne nitu yàlla yi benn yoon wi lañu aw xéewalu yàlla yi nag moo baaw naan bëri bëri mu tasaare ko fu ci nekk nag ñu ko fay ut loo tudd min xëy bil difaati li xëyri wa min nii loo abdul alaya damiru bi ñu taxawee xaadimu rasul danañ fàttali ngir ñi nga xam ne danañoo bëgg a wérlul ay dat ndax nit ñi léeg-léeg waxtaan daf leen yóbbu ba ñuy baña teg dat yi bu ci nekk ndax mu leer te fekk ci buntu njàngat itam lu nekk nga jox ko bis ba jox ko dat ba dana ci am solo rawatina ci buntu gëstu ak ñi nga xam ni wàllu gëstu daf leen itteel di fukki ak juróom-ñett ci weerum safar mooy ñaareelu weer wi ci hijra mu nga xewe woon ca Tuuba ca Daarul Quddus ca xalwa boo xam ne sëñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi ko doon def fekkoon na ci jamono jooju itam tubaab yi yëgoon nañu ne mënuñ ko mënatuñoo nekk ak moom mu mel ni su yëf yi di mat fële ñële ñu ngi koy yëg ca seen yëgin fekk ci lañ yónne woon ñoom itam mu yeblewoon ñu dem wax ak ñoom ba mu pare li muy def ci bis boobu di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu tombeek samedi ci atum jëy chësin jimbi di ñett yaabi di fukk siin bi di ñetti téeméer Chine bi di junne muy junne ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett di bisab samedi ca yoor yoor ca la sëriñ bi radiallahu anhu taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa mu xamal ko ne ko sa càkkutéef mat na la nga doon ut may nañ la ko dangay daldi aw nag yoonu liggéey loola pour waxaat date bi ci weeru tubaab ma nga tombeek fukki fan ak fukki fan ci weeru ut ci atam junne ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñu bari dañuy yegsi ci septembre bi waaye septembre bi yegg ak ndarga ca juróomi fan ya loola yegg ak ndarga la waaye bisab màggal bi ca ut la fukki fan la ca ut ma nga yegg nag ci juróomi fan ya ca septembre war fa dépare fan yi ak benn loola ca ndar ga la ak ca tàmbali jógeem ca ndar ca yoonu géej ga waaye tase ba bisu màggal ga ut la woon fukki fan la woon ci ut nekk di samedi loola nag nga xam ne mooy dat yooyu tombeek fukki fan ak juróom ñett boobu ñuy màggal ci yoon woowu di tàmbali mooy yoonu nattu yàlla ñi muy may ñépp jaare na leen ci nattu leen wax ko sax ne day leen nattu ba xam way muñ yi ci seen biir ndax waxtu wu nekk dafay ne li may jox duma ko jox lu mooy woy muñ kon yooyu yëpp il mu génne ko ba màndarga ba feeñ ba ñuy jàngat xam ne aha kii jaarale nañ ko ci yoon woowu te wax naa ne yoonu nit ñu baax ñi benn yoon la mooy siraatul mustaqim fañ leen awale benn la looloo tax boo ko xoolee xàmme ko soo ko jàngatee mu yomb la ndax dafay fekk na ko yàlla daan defee rek la ko continuer di ko defee daan na ko defal ay yónnent ba muy yónnee daan ko defal ay yónnent yum yónniwul muy anbiya biñ yegsee ci wilaaya itam nam ko daan defee ci ñooña la koy defee ba léegi mooy fokk ñu jaar asiru sa yooyu yépp na mu demee ba mu demee ca asamaani juróom benneel ba tase fa ak Muusa mu wax ak moom su demee jëli julli bu ñëwee mu wax ko ne ko dellul ñu wàññil la ko te ca jëmm ja lañ wax ne moom la taseel ba ni mu ñëwee ci benn xaaju guddi mu dox ca loo xam ne ëppoon na doxab weer te loolu yépp ñi nangu diine nanguwaale nañ ko ña ko weddi weddi nañ diine te loola niñ ko defale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nekk di mucjisa noonu lañ koy defalee awliyaullahi mu nekk di karaama loolu itam xam-xamu karaama ak ne yàlla lam daan def di ijaaz ne ab yonent def na ko danaa ci lottaloo keneen ku bugg defal ni moom noonu la ko maye ay wàll yu te leen ñoom ñu lottuloo ci kenn ne def leen kum neex mu gëm kum neex mu weddi ku gëm moo yokk boppam moo ko defaral ku weddi moo lor boppam boppam rekk lay lor kon gis yooyu nga xam ne dañ ci gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko bokkale boo ca demee ci imaamu sayuti ñu xamoon ko ci xam-xamu xadis wax na lim bu takku bu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci almursi abul abbas nee na bu ma tàggoon ak moom benn diir rekk ma jàpp sax ne bokkatuma ci jullit yi boo demee ci alimaamu suuri wax na ko lim bam ko gis ña ko wax nag bëri nañ bëri boo xam ne gëm nañ ragal nañ yàlla ragal goo xam ne am nañu xam-xam am xam-xam boo xam ne yaatu nañu màndu nañ màndu goo xam ne lañu boole yépp weddi ko dafa amatul yoon moo tax ci boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañoo tënkoon ñu koy weddi ci benn baat ku mel ni Cheikh Ibrahim Niass dafa daan wax ne ñu koy weddi dañ cee bokkul moo tax ñu koy weddi dañ cee bokkul baat bu ëmb xam-xam la ñu koy weddi dañ cee bokkul mooy dañ ko réere te ki réer réere dara jarlu nga ko koy wax ndax boo ko ko waxee du ko xam ka dëkk ci àll ba mës sa gis njéen njëndi nga ne tey nga wax ko gratte-ciel da ngay sonn rek ay tabax nu ñuy tegaloo la lay wax te daan ndax xamu ko ki xamul dara ki amul caf ko ci gémmiñam nga wax ko li suukar di saf dangay sonn rekk kon ki réere moom di ko wax lim réere jaru ko ki xam suy weddi xam lu ëpp ña xam lañu xam moo ko war a tax a weddi waaye warta weddi weddi loolu munta nekk te ñooñu ko wax yegg nañ ci dayoob xam-xam teg ko ca kon yooyu yëpp dama doon ñëw rekk ci ne nitu yàlla yi benn yoon wi lañu aw xéewalu yàlla yi nag moo baaw naan bëri bëri mu tasaare ko fu ci nekk nag ñu ko fay ut lawoo tudd min xay bil difaati li xayri wa min nii lawoo abdul alayya damiru bi ñu taxawee xaadimu rasul danañ fàttali ngir ñi nga xam ne danañoo bëgg a wérlul ay dat ndax nit ñi léeg-léeg waxtaan daf leen di yóbbu ba ñuy bañ teg dat yi bu ci nekk ndax mu leer te fekk ci buntu njàngat itam lu nekk nga jox ko bis ba jox ko dat ba dana ci am solo rawatina ci buntu gëstu ak ñi nga xam ni wàllu gëstu daf leen di itteel ak juróom-ñett ci weerum safar mooy ñaareelu weer wi ci hijra mu nga xewe woon ca Tuuba ca Daarul Quddus ca xalwa boo xam ne sëñ bu mag bi Cheikh Ahmadou Bamba mu ngi ko doon def fekkoon na ci jamono jooju itam tubaab yi yëgoon nañu ne mënuñ ko mënatuñoo nekk ak moom mu mel ni su yëf yi di mat fële ñële ñu ngi koy yëg ca seen yëgin fekk ci lañ yónnee woon itam mu yeble woon ñu dem wax ak ñoom ba mu pare li muy def ci bis boobu di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu tombeek samedi ci atum jëy chësin jimbi di ñett yaabi di fukk siin bi di ñetti bi di junne muy junne ak ñetti yoor yoor ca la sëriñ bi radiallahu anhu taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa mu xamal ko ne ko sa càkkuteef mat na la nga doon ut may nañ la ko dangay daal aw nag yoonu liggéey loola pour waxaat date bi ci weeru tubaab ma nga tombeek fukki fan ak fukki fan ci weeru ut ci atam junne ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñu bari dañuy yegsi ci septembre bi waaye septembre bi yegg ak ndarga la ca juróomi fan ya loola yegg ak ndarga la waaye bisab màggal bi ca août la fukki fan la ca août ma nga yegg nag ci juróomi fan ya ca septembre war fa dépare fan yi ak benn loola ca ndar ga la ak ca tàmbalib jógeem ca ndar ca yoonu géej ga waaye tase ba bisu màggal ga ut la woon fukki fan la woon ci ut nekk di samedi loola nag nga xam ne mooy dat yooyu tombeek fukki fan ak juróom ñett boobu ñuy màggal ci la yoon woowu di tàmbali te mooy yoonu nattu yàlla ñi mi may ñépp jaare na leen ci nattu wax ko sax ne day leen nattu ba xam way muñ yi ci seen biir ndax waxtu wu nekk dafay ne li may jox duma ko jox lu mooy woy muñ kon yooyu yépp il mu génne ko ba màndarga ba feeñ ba ñuy jàngat xam ne ahakay kii jaarale nañ ko ci yoon woowu te wax naa ne yoonu nit ñu baax ñi benn yoon la mooy siraatul mustaqim fañ leen awale benn la looloo tax boo ko xoolee xàmme ko soo ko jàngatee mu yomb la ndax dafay fekk na ko yàlla daan defee rek la ko continuer di ko defee daan na ko defal ay yónnent ba muy yónnee daan na ko defal ay yónnent yum yónniwul muy anbiya biñ yegsee ci wilaaya itam nam ko daan defee ci ñooña la koy defe ba léegi mooy fokk ñu jaarale la ci yoonu nattu waaye nattu ba itam fokk mu téeñal la ba nga àttan ko ba nga xam ne lang cay dem danañ la ca garantil te loolu la yonent bi sallallahu mu wax xaadimu rasul wan ko ne ko yoon wi dana leer te dara looy ragal walla dara lu lay lor du ca feeñ loolu yépp itam dafay dugg ca maqaamaab Ibrahim li yatma inna qalbi da nit ki danay soxla yóbbal te mooy li yatma inna bi bañ waxoon Ibrahim ci yoon yooyu nit ki daf cay soxla la yonent bi amoon ca xaaru suur as sakinat huwa allazi anzala sakinata sakina daf koy soxla dal googu ba li muy jàkkaar lool ak loola ñu koy fexeel yépp bu ñëwee fekk moom préparé nañ ko nit yàlla yi dañ leen di préparé nañu préparé woon Muusa nga xam ne lu jiitu ñu koy jox etam wi dañ ko jël ne ko sànnil bi mu ko sànnee bi mu ko njëkkee xool fa aw jëfa xiifatan nga xam ne sax rët na ba jaaxle kon yooyu yëpp préparatif yooyu yëpp dañ leen koy defal yoon woowu mooy yoon woowu naka jekk looloo tax xaadima rasul ba mu gisee yonent bi salaay sallam mu dalal ko won ko ne ko yoon wi jàmm rekk moo cay nekk yoon wi dem ak jàmm lay doon ñëw ak xéewal bu yaatu moo tax foofa di bunti xéewal ba moom la jàpp muy dat ba ba mu jàppee dat boobu muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu jóg war a dem liggéey yi ca ndigalab yonent bi sallallahu alayhi wa kon bis boobu mooy bisab màggal looloo tax mu ñaan ñu koy taxawee gannaawam di ko taxawee itam diirab lim fi nekkoon te ne bis ba bisab xéewal la loolu lañ continuer ba léegi ñépp di ca uy ji yoon yooyu nag di yooni nattu waaye itam di yooni xéewal mooy yoonu nit yàlla yi comme niñ ko waxe su ko defee nag liggéey na ci liggéey yu yaatu ca mbindam nga xam ne amul fenn fu mu taxaw lu mooy loola wax naag yow wax naag géej wax naag jéer yi wax naag nit ña wax naag jinné ya wax naag asamaan wax naag suuf wax naag barab yem romb barab par barab yooyu yëpp itam mu jël ko mentionné ko di ko bind ba nga xam ne soo toppee mbind moomu du am fenn fu mu yendal walla fenn fu mu fanaanal walla kenn ku ko wax walla kenn kum tontu lu mooy loola danga am kañ la ak fan la ak nan la kon bàyyi na xéewal bu yaatu bu mën a tax ba yoon boobu yépp nga mun koo gis jàkk mu leer ca mbindam ñaareel bi itam lañ ci jëlee ca mbind ci yooni sëriñ bi yoonu géej googu mooy ne yàlla jaarale na ko ca fam daan jaarale gaaya ñamu méngoo seen mbir ñamu méngoo seen mbir ci yonent ya ak nabiyin ya ak awliyaa ya te loola mooy nattoo ko noonab yàlla bu jóg taxaw ci kanamam yàlla waxtu woo xamee ni tànn na nitam dana ko nattoo ab noonu yàlla bu taxaw ci kanam yoonam defaloon na ko aadama ibliis taxaw ci kanam yoonam defaloon na ko ibrahim namrud taxaw ci kanam yoonam defaloon na ko Isa buxta nasar taxaw ci kanam yoonam defaloon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa aboo jaal taxaw ci kanam yoonam noonu la ko continuer itam ak ay wàlliyoom amul kenn ku mës tànn lu mooy fexe na ba nattoo la ab noonam noonab yàlla bu wér taxaw ba xat xatoo la di la fexeel di la utsi waaye itam jaarale na ko fa mu daan jaarale jaarale na xaadimu rasul fa mu daan jaarale nitam ñi te mooy ne pexe yooyu yépp ñuy fexe dafay naax saay yàlla musal jaamam jàllale ko moo tax mu sadd bayt ba ne salimtu min al aada mucc naa ci pexey noon ya yooyu yépp itam mooy leeral la ne la kii ca nitu yàlla yu mag ya ca la bokk indi na itam xéewal boobu nitu yàlla yi indi muy yóbbal te mooy nit ñi war laa uy nga war leen a gindi nga war a yombal ak jaamu yàlla ci fu mu jafe woon nga war a fexe ba tasaare diine ci place bu mu tumuranke woon moo tax fekkoon na diine tumuranke fi waaye fexe na ba wéttali diine ba ñi bëgg a wéttali diine yépp itam mën a fekk ci kër ak xaadimu rasul wéttalikaayu diine wettali na ko ci ay daaray alxuraan yuy wéy ba léegi di xatal tubaab yi wettali na ko ak daaray fu ñuy taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daara yu ñuy jàngale ay xasaay muy lu xatal ba bisu bi tubaab yi waxuma bañ fi jógee dama ne ba bisu tey bi ba bisu tey bi bayeer yépp ñu ngay joxoñ daara yooyu te naan daal war nañ ko fa jële duggal fa njàngam tubaab seen culture ba léegi ñu ngay joxañ ñu koy taxawee di wax ne nañ fexe nu ñu wañee seen loxo ba ñu dugal ca njàngam tubaab ñu fi gouverner ba bisab tey bi ñu ngi amee projet yooyu war koo doxal waaye yàlla ma garanti loon xaadim ne ko sa ker gi dana nekk ker gu ñuy wéttale yàlla moo sàmm daara yooyu moom ma garanti woon ne alxuraan ji moo ko wàcce dana ko sàmm mooy continuer di sàmm daara yooya waaye lu koy fexeel mosu fee jóg waaye nag lu ko sàmm ba tey itam du fi jóg mu ngi taxaw kon danañ ci gisitam itam ne li xaadimu rasul taxawee woon loola dañ ko ko sàmmal waaye jógu fi tubaab baa ngi fi ba tey pexeem maa ngi fi ba tey ñetti faam yaa ngi fi ba tey te mooy làmmiñam la langue française te mooy xaalisam le franc te mooy armeem ak gànnaayam mooy mooy itam l'armée française waaye nag yàlla moo sàmm yàlla moo sàmmal boppam lii diine ji fii daara yi fii ñu koy taxawee fii ci barkeeb ñooñu liggéeyoon looloo tax pexe yi dina bari du dëñ di bari pour ñu na nit ñi wàññi ci ñoom ak ngëm yàlla xëcc leen yóbbu leen ci poñetu àddina xëcc leen def seen diine muy politik xëcc def seeni tarixa mu nekk ay parti xëcc di leen naxee ak péete ak di leen naxee ak parparloo ak di leen naxee ne maa gëm duñ dëñ mukk di teg loola waaye nag yoon woowa yàlla sàmm na ko ku ca nekk mu feeñ ku ca nekk bu boobaa dootoo doon taalibeb tubaab dootoo doon itam koo xam ne li jiitu ci yow ci say citation sa lépp mooy ñooña waaye dana fekk mooy yàlla ak yonent bi ndax loolu lañ fi ji bàyyi ko fi kon yoonu xaadim bi mu sàmmoon bàyyi ko fi mooy daara yi mooy alquran mooy mbuggeel bugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu tegoon itam muy charte ci nga nekk taalibe nekk murit mooy mbuggeel mooy nga bugg ko mooy nga bugg xaadimu rasul waaye ana lan mooy bugg xaadimu rasul mooy bugg rasul ana lan mooy bëgg xaadimu rasul mooy bëgg yàlla ana lan mooy bëggu xaadimu rasuul mooy taxawee alxuraan duul ay kàddu yu làmmiñ di génne idaa xallatil hidaayatu xalban nachatat fi libaadati l aadaau bëggu danga dem ba nga xam ne danga koy roy mu nekk sa royteef xaalima jaxate kala dañuy wax ne dafa am ku doon ñëw ca dëkk ba bim ñëwee gis ne ñépp rekk ña ngay tux suñ leen laajee ñi ne xaalee koy def biñ ko laajee mu ne bàyyi leen loolu lañ bëgg a roy ci man waaye maa fi dàq jàng alxuraan te royuñ ko maa fi dàq war fas te royuñ ko maa fi ëpp xam-xam te royuñ ko kon nit ñi danañuy dem ba seen bopp walla seen prétexte la ñuy waxee ne loolu mooy bugg diw waaye fekk na diw ku ko bugg di def lam daan def looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne almaru maa man ahab ku nekk kat yow ku nga bugg yéenay ànd ba aljaan waaye mbuggeel moo jafe mbuggeel mooy roy lam la bàyyi woon toppal sàmm lam la bàyyee woon waaye bugg ko nag mooy saxoo alxuraan bugg ko mooy saxoo xasaayid tagg yonent bi salaay sallam bugg ko mooy bugg yonent bi sallallahu alayhi wa doon taalibeem mooy nga jël ñaari tànk yi di ko doxee shariatook xaqiqatu xam ne yàlla rekk mooy yàlla nga gëm ko di ko ut ci yoonu ommatu ci yoonu ñu ku yegg ci moom gàddu sa loxo di la ci yóbbu ak teg ko ci shariatu lu yàlla santaane nga def lu mu tere nga bàyyi ñi ngi taxaw di fàttaliku ay nit yàlla yoo xam ne seen lépp ak mbaax la seen lépp ak kawe la seen lépp ak yëkkatiku la di leen fàttaliku ci jamono joo xam ne jamono ju jar fàttaliku leen la ndax lëndëm mi ngi gëna bari te ñoom seen lépp ak leer la kon bët bëset ñu gën leen soxla yoonu yàlla nag yoonu lislaam mooy yoonu tumuranke diine ji du dëñ mukk di tumuranke ba ba muy yeggee ci kanam boromam looloo tax yàlla bégal woy tumuranke yi looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon diine jii de tàmbali na ci tumuranke badaa haada diinu gariba dana delloowaat ci tumuranke wa sa yahuudu gariban waaye mu ne fa tuubaa lil gurabaa aljanna ñeel na way tumuranke yooyu nga xam ne fa la seen tumuranke di jeexe kon diine mi ngi gëna a tumuranke waxtu wu nekk noonu itam la nit yàlla yi ak seen woote di jaar ci loola su jógee ci ñu néew doon ko topp dafay delluwaat ci ñu gëna a néew di ko xam di ko topp sullatun min al awwalina wa qalilun min al axarin kon ñu néew rekk ñoo koy mujje ñu néew ñooñu nag ñu ngi ñaan yàlla mu booleñu ca ndax lu néew moom bokk ca rekk xéewal la diine ji tàmbali woon tumuranke mooy benn aaya rekk nit ñi daan nañ ko dégg sonn ci lool pour dégg ko pour xam ko waaye ñu dem ba ngay gis ay nit ñi faf mokkal lépp te fekk itteelatu leen dañ koy wax rekk ci seen làmmiñ nga dem gisoon nekkoon benn saalik benn taalibe ci tariqa boo nekk mu jafe lool nga dem ba ñépp jóg ne man mi moom laa ñi ne man mi moom laa nga xam ne kon jéexaat seet ku ko doon itam dafay jotaat loolu yépp nag suñ koy wax ci buntu fàttali ndax yoon nit yàlla yi ab taal la taal nag dafay gëmm ak a gimmi léeg-léeg mu dem ba mu yàgg tàkk-tàkk ba soo ko xoolee ëf ko nekk ndax mu boyaat doom ngay faf am ci sa bët ndax dañ ko gëmmal léeg-léeg lam daan tàngal boo ca tegee sa loxo dangay nga gis ne tàngul nga dem ba foog ne loola fay na lii de jeex na diw la lam daan woote diw de wooteem ba dakk na nga toog ba mu yàgg mu gimmi mel ni xalu safara boo sànni ci mbooy lépp di tàkk noonu ko yàlla defalee wàllu wàlliyoom yi noonu la ko defee ci jamono nga xam ne dafa doxe jamono ñaari tànk guddeeg bëccëg léeg-léeg guddi ñëw ba ñi foog ne leer fu ñu koy jëleeti sondeel tëna almet bu ko tët taal tëna oxset bi sori na kenn gisatul naaj wi ñëw di tàng ba nit ñi naan kañ la jant bi di sox te fekk jàmbatul tuñ sondeel waaye tàngooru jant ba lañuy jàmbat ni mu defee nag guddeeg bëccëg ba bu nekk di ànd ak na mu àndal noonu la defee itam niti yàlla yi léeg-léeg ñu gis leen ci guddi ba foog ne ah loola jeex na léeg-léeg ñu gis leen ci bëccëg ba defe ne a ah, mooy seen bëccëg ba te fekk seen bëccëg ba du tàng mukk seen guddi ga itam du lëndëm mukk moo tax xadis ba ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha bàyyi naa leen ci lay wu wóor xéewal bu dakk bu sax mu ne guddeem ak bëccëgam ñoo yem kepp yooyu yépp pour wax ne yoonu nitu yàlla yi yoon la woo xam ne yoon wu jafe xam la ka dem ba foog ne moo ca nekk kooku moo war a gën a tiit ñépp ka dem ba foog ne mos na ca moo war a gën a tiit ñépp ndax yoonu ibtilaa la du yoonu bàkku ndax bàkku ba ma nga ca kanam ma nga bis ba yàlla di àttee foofa lay door a wax baatam bu mujj bi moo tax yoonu xaw ak rajaa la da ngay yaakaar ba defee ne bu doon benn yow la waaye léeg-léeg itam nga tiit ba defe ne bu doon safaan bi benn bi yow la ku nekk ca fa nga nekk ca la ngay def feeñal ci jikko yooyu sooy jaay nga la feeñal ci ak taalibe ba nga xam ne doo ca raxlu lu ca bokkul doo ca def lu ca bokkul nga la feeñal ci ak jullit ba nga xam ne doo ca wor doo ca woru nga la boole ci kuñ nangu ñaanam ba nga xam ne dana tax ba ba toj ngay dellu ci sa borom kon yooyu yépp lay ubbi ci nit li muy ubbi ci nit bis yu ni mel mooy mu war a toj xol war koo nàmm war jël nit ki war koo delloo ci boromam ki ñuy nangu ak siyaareem nangu ak màggalam nangu ngomblaanam ga dafa war a feeñ nag ca jukko ya dafa wara feeñ ca jëfam ya dafa wara a feeñ ci dellug yàllaam li tax li ñu taalif yépp ñoom wàllu yàlla yi ñu taalif ko ci yonent bi sallallahu alayhi te boo xoolee la ci xaadimu rasul def bëri na la mu taalif la mu wax ci yonent bi soo ko doon peese bëri na soo ko doon taxawal ci barab yaatu na waaye boo xoolee ne bayt bu nekk ca bayt yooya wax ju nekk ca wax jooja riche na riis boo xam ne soo ko jëloon bugg ko dégg dina la laaj jotaay bu yaatu kon bàyyee nañu leetar leetar boo xam ne mooy mel leen nii xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool leen jukkoom ya xool leen jëflanteem ba xool leen waxam ya déglu leen kàddoom ya seet leen jëflanteem ba su ko defee bu boobaa li ma leen bàyyeel leetar bi ma leen bàyyeel dangeen ci mun a jëriñu jiital leen ak yiw jiital leen ak mbaax xam leen ne sang ba sallallahu alayhi wa sallam bakkam ba yépp mooy yaa rafet ko yooyu moo doon leetar yi loolu moo doon leetaru xaadim xaadimu rasulillah moo tax boo demee wa innaka la ala xuluqin azim def na ci taalif ngir won la ne la lépp nag mu ngi ci jikko ya kon taxaw ci kanam jukko yi ci jamono joo xamee ni jafe-jafe àddina duwatul jafe-jafe koom-koom ne koom mi dem na ba ñu koy lakk dem na bañ koy tuur ci Europe ak yeneen i barab danañ fay tuur ay soow ak i meew danañu fay lakk ay mbay mbayeef pour jàpp rekk ne marché bi nar naa inoon wu kon koom-koom am na diggante yi sori woon gàtt na foo bëgg a dem boo jógee simila ak saala nga yegg fa nit ñi gindandikoo nañu ba sooy wax gën jaa sori ak ñu ngi lay dégg nga mën a jokkook ñoom fekk yaa ngi ci sa tool di bay kooko nekk ca njënd ya gën a sori ca amerig walla faneen ngeen di toog di wax te buum du ca dox kon li nit ki doon réyal yépp muy rëy ci moom rëyatul waaye nag am na lu jafe woon am na lu yomboon te tey la gën a jafe te mooy jikko yu rafet te mooy jëflante bu rafet te mooy sant yàlla te mooy dellu ci yàlla looloo tax ñu ne crise jamono ji crise de valeurs la jukko yu rafet yooya la manqué jukko yu rafet yooya nag suñ doon seet barab bañ koy utee ji duul lu mooy niti yàlla yi ndax ñoom utuñoon a gouverner utuñoon nguur utu àddina utu ñoon la dimension temporel moo xam économie la moo xam sociale la moo xam leneen waaye lañu uti woon mooy xol ba fóot ko dindi ci xol a riinu te mooy gàkk-gàkk boobu nga xam ne dana dox digganteem ak boromam tegg ci moom xujbu xijaab boobu nga xam ne dana dox digganteem ak boromam waxtaan nañu démb ci suñu waxtaan bi ñu indi xasaa'idu xaadimu rasuul fi muy waxee juróom benn yi nga xam ne ñooy waral kiiraay te bari lekk bokk ci bëri naan bokk ci bëri nelaw bokk ci càggante bokk ci ñàkk xayaawu ñàkk e toroxlu ci sa kanam borom tey rus tey ànd ak kersa bokk ci indi na ko ci juróom benn melokaan yem la wax ne la yii ay kiiraay yuy dox sa digganteeg sa borom la kon teggi kiiraay yooyu ba xol boobu mën a set yegg ci boroomam moo tax ñi bàyyil ñu zikru te mooy tudd yàlla jàng alxuraan jàng ay xasaayit julli ci yonent bi salaay ndax alquran moo wax ne ala bi zikrillaahi tatma innal qulub annafsul mutma bi dugg aljannaab yàlla ba ci zikrullaahi ci lay teeyee kon ñu jox ñu yoonu zikrullaahi kon loolu mooy li ñu fi mag ñi bayee loolu mooy li ñu fi xaadim bayee loolu mooy li ñu fi Ahmed Tijaani bayee loolu mooy lañu fi Abdul laa Jeylaani bayee mooy lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi nekk ay ndonoom di ko wéyale ndax ñun dégg nañu ko ndax ñun dégg nañu seen message seen lettre bi ñu baye walla poñetu àddina daf ñoo bëgg a nax walla lu xumb di tas daf ñuy nax walla ab rëj rëj yu àddina daf ñoo nax ndax dégg nañu liñ ñi bàyyee ñoom lañ ñi bàyyee woon mooy yoon woo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gindiwoon moo leen feeñu wax ak ñoom moom lañ gis ci lu dul ay nelaw moo leen waxee ñu déglu ko loola lañ ñëw dëgër ci bàyyi ko fi ndax ñun pare nañoo teg suñuy tànk ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ñun pare nañoo wéttalikoo alxuraan ndax ñun pare nañoo nekk ay taalibe ndax ñun pare nañoo nekk ñoñ buggeel walla dañoo bëgg a wëlbati loolu yépp daldi ko def la gaaya waxoon Muusa ba mu jógee ci wax ak boromam yegg si ñu ne ko utal ñu lu ñuy jaamu ñii dañoo am lu ñuy jaamu ndax dañoo bëgg a def la saamiri yu defoon topp tànk yonent yàlla Muusa gis ne barke na mu tibb ca loo xam ne dana ca mën a ñëw defal leen ca ijlun jësadun lahu xuwaar lu ñuy jaamu ñëw ne leen liikat ca tànkam ya ca barkeem balaa ko jële kaay leen ñi jaamu ko ndax ñun dañoo bugg a jël ab barke wëlbati ko def ci lu ñuy jaamu walla dañoo bëgg a jóg topp ca tànki yu sell yooya ñu ñu bàyyi loon lu nekk rekk alxuraan jàngale na ko alxuraan jàngal nañu bataay yi ay yonent fu ñu jaar ak seen gannaaw ni ko ñeneen di njare jàngal nañu ñu ba tàyyi ay wàll yu fu ñuy jaar yaxusaak yaawuqaak nësr ñu mu jëleen di leen jaamu ndax ñun pare nañoo nekk jaamu yàlla ndax pare nañoo jëlee ci yonent yi ndax ñun pare nañoo jëriñoo ci wàll yi ndax pare nañu dégg lañ ñu bàyyee woon yaakaar naa suñ toogee bay tàggoo loolu la ñuy war a njëkk a wax wax nañ ci suñu waxtaan ne boo jëlee minanul baaqil qadim bu Cheikh Bachir jàngat ci sëñ bu mag bi danga gis ne alquran ju taxaw la wax nañ li ci suñu waajur ba waxoon ne ko tafsirul jëlaalee ni yow la alquran ju ñuy juy firi lañu alquran ju taxaw nga ñu wax jikkoob sëñ bi yépp nettali ko gannaaw bu ñu ko xamee lañu nettali mooy ne sëriñ bi alxuraan bu doon dox la kon nag ndax ñun ci kanam alxuraan ndax danañ fàttaliku ndax hal mu dëkkir ndax danañ ci fàttaliku yéemu jëriñu ci loolu itam ci ñun lay dellu gis nañ ne sëriñ bi léppam bëgg ak bi sallallahu alayhi wa la ndax pare nañoo bëgg yonent bi kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaar di leen ñaan ngeen di ñaanal fu ngeen toll ñu ngi leen di ñaanal fu ñu toll ñu ngi leen di tàggu di leen wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وذن الغداء هناك

أسير مع الأبرار حين أسير وزن لداني هناك أسير أسير مع الأبرار حين أسير